مصطفى إذ جاء يمتار من الكتاب على خير الورى حكم حكم حكم ñett yëpp baax na dëggal Seydul Xaaji Malik mu mën jàng ma Maodo nee na yoon yi Iblis mës jooy yuuxu yëpp man Maodo toppatoo naa ko ba indi ko ci xilaasu saxaab xam nga borom kër di jooy làkkatu ci néegam rafet na mais di jooy njaboot ji wër la dafa ñaaw lool moo daloon iblis wa anna ranna la inu xibbu yaxduruhu dañ ko teewee junuuduhu wa huwa ri'didun min as-sadami dégg nga Maodo ci xilaasu zahab ba tax bañ wàllu yu ko wattuwul sa lépp yàqu lool laa lekk doo ca fekk dara li koy defaraat mooy ñëw tuub am na ko tuub démb <laughs> boo tuubul da ngay yàqule waaw boo tuubul rek da ngay yàqule da ngay yàqule lépp ay yàqu dara du dox jërëjëf jërëjëf waaw moo tax firaaw na ñett yooyu la rawee woon ñëpp firaaw na mbaa yëg nga ni turam moo ngi bàyyee ko ma yeggali ko de am na ko tuub démb jar naa xam jar naa xam waaw bu ma paree dugg ci firaaw na am na ko tuub démb haaji maam yu boo ko wattuwul da yàqule benn waaye jëex waaw waaw benn waaye joox ca xadara ba démb mu ñëw dugg waxanteeg sang bi la muy waxanteeg moom sang bi ne ko boo noppee wax ko ci rajo bi ñëpp a dégg waa ji ne man de jamono yële dafa am ñu doon wax ci yow am kilifa gu wax ci yow ma déglu la mu wax mu ne la mu wax ma gëm ko am baat yu ma ci sànni waa ji nee na boobu ba léegi lu ma yóotu mu lu ma sóob sama loxo mu yàqu sama liggéey yàkku na amatuma dara lu may def lu sotti mu gis Seexu Omar góor gu tedd gu sell googu ku ko bëgg loxo ca kaw ñu màggal borom madduqun wa dammun fi makaanin waahidin min waahidin lil waahidin ajabaani Seexu Omar ne ko da nga tooñ da nga tooñ walluyu da nga tooñ walluyu ah julli sax mënatu ko pour mu tege ci yoon ak kurus gi ma doon xëcc mënatu ko waa ji neen day jub ci kurus gi taayal way ah mu ne ko da nga tooñ nitu yàlla bi mu ñëwee kër ga jéggalu wax ko ci rajo bi ñëpp a dégg sang bi ne ko feeg déwén yi daggoon yëpp dana jox ko war la ilaha illallah waay def leen ni ah. ko wattuwul doo am dépasse de wattu nee na seexal xaaji Omar waaw. de boo paree nag yeggalil de yeggalil yàlla dafa def. li tax ma ne ko ñëpp a ko dégg comme moo ñëwal boppam ba foofa nit ku baax la parce que bu ko neexoon bañ a ñëw ah waaye bu ñëwul it du baax ñàkk pexe la li sii di wax xaaji sii di li mu wax démb loolu ñëpp nga fa ñi fa newoon nekk nañ fa maa sax Omar boo demee loolu xëy na sa rakk moo fa newoon Abdoul Aziz dama ne ko bu ko bu ko sëpp caméra bi ndax gor kenn du ko weer su ma neexoon nit ñu filme ko génne ko ndax moom nee na ci internet bi la doon bind ma bi dama daan bind ci yow lu bon lu ne bind naa ko ci net bi ci yow ma ne ko yëguma ko sax yàlla xam na ko ma ne ko man de yëguma ko ndax man awma accès ci net bi ku am accès ci net bi mooy gis man gisuma bi ma ko déyee yii li muy wax ak man yëpp nag mu ngi jooy ndeysaan mu ne ka ko bëggoon a may jabar sax ñu fantasiroo ñoom ñaar mu ne ko dootuma la may jabar ba pare porté ko ak yeneen ak yeneen nee na yemu ca waaye julli sax mënatu ko ba seen waa kër dañ ne dafa dof fi ne mu ne yàllaa ko dimbale nag mu amoon benn tur yàlla di ko liggéey allahu muhammad xam naa ñoom imaam si ñi xam nañ ko am la xalla mahud lañ koy wax mooy allahu muhammad mu ne bi mu koy sikkar ba ci guddi gi Cheikh Al Hadj Omar feeñu ko ni ko saa si di waxee ne ko danga nga tooñ nitu yàlla bu ci yàlla mu ne ko kan la mu ne ko Chérif Ibrahima dara boobu nga doon xas moo la teg moo la teg lii nga am mu ne ko nu may def mu ne ko faw nga dem ba ca ñu moom mu baal la wa illaa di nga dem safara mu ne ko boo demul it daal ñu leb sa fan yi dal dina ko sëggal mu sëgg mu bind ci diggi gannaaw gi Muhammad mu nga marke ci diggi gannaaw gi ba léegi Cheikh Omar bind ci diggi gannaawam moom Mouhamed mu marqué ci diggi gannaaw gi comme ci yéene bu summee gannaaw gi nga gis Mouhamed bi marqué nga xam ne Cheikh Omar du nit <laughs> du nit nee na mu ne ko nag yaa ci des demal nga baalu ji ko su la baalalee rek yëf yi teggeeku la mu ñëw wax ma ko ma ne ko jëlal rajo bi nga wax ko ne ko comme ñëw nga fi fii ci xadara bi jëlal rajo bi nga wax ko ku honnête nga nag ma ne ko bi ci des si yàlla naral na la jàmm man topp ma kenn dara xëy na la la duuma ci yow la jóge waaye du ci man ma ne ko la nga wax la yàlla delloo rek waaye du ci man de ma ne ko man yëguma sax ndax yaa ngi dund xaw ma la mu gisuma la tey laa lay door a gis yëguma sax ndax bind nga ci man ma ne ko dee leen wattandiku nag ku nee leen wattandiku am na loo xam ne kenn du ko def ah ma ne ko yàlla ci mbaaxam démb bi may julli jumaa fële ca mariste ki ma dendal ci sama ndeyjoor mu ngi yor kurus kurusu peme jeune la nag mu ngi sol pantalon keneen ki ci sama ndeyjoor ki moom ci sama càmmoñ la ne keneen ki ci sama ndeyjoor may génnee sama kurus sama loxo fel ko ma ne ko may def ko junj comme jumaa kenn du ci wax biñ sëlmale ma ne ko baal ma de sama loxo bi la laal bi la fel mu yeggali kurusam ba pare ne ma man àddina bi yëpp yow laa bëggoon a gis sa loxo bi fel ma nga naan ma baal ma <laughs> dal di ma topp ba ci kër ga ndeysaan keneen ki ci sama càmmoñ nag moom rek laa doon xool moom kurus gi mu yore peme la bu rafet ñu ngi ko nas nas bu rafet jeune la nag mu ngi sol pant moom julliseewul xaftaan sax pantalon ak chemise la sol jiin mais kurus bi benn ge benn côté per bi allahu lañ ci bind beneen côté per bi muhammad maa ngi naan kii de kurusam mi bu ma ci mënoon jot mu ngi xëcc rek nag li imaam di xutba yépp mu ngi xëcc rek biñ sëlmalee jumaa rek mu ne fef nuyuwuma sax dafa jékki-jékki rek ne fef dem yoon ma ne ko ma ñëw ngay wax ak waxu allahu muhammad ba pare jaaraat ci turu Cheikh Omar ma ne ko kooku Cheikh El Hadj la nee na mu ne Cheikh Omar ne ko dama bëgg ngeen bàyyi xel shérif lu mu wax maa ko ko wax loo nee loolu la ko Cheikh El Hadj Omar wax ak yeneen yoo xam ne boo ko waxee day niru wax ci sa bopp te amul solo ma ne ko man de yëguma sax lu ma doon ma ne ko xam naa ne daal bëgg naa doon balekati mbedd ndax yàlla bindal ma tiyaabo waaye yëguma ci sama bopp lu ma doon ma ko nag ku tooñ da ngeen di wattandi ko tooñ ndax yàlla yonent bee ne azulmu zulumaatun yowmal xiyam tooñ day jur ay lëndëm bés ah, ma ne ko waaw toogal loo ci doon liggéey mu ne ma téeméer ak fukk ak déedéet ñetti téeméer 313 ne ko dinaa la ci jox rek li mu fukk ak benn sa lëpp dox waaye dinaa la wax noo koy sikkare biñ paree ba xadara ba pare moo ko ci biir yëkkati xaalis may ko jox ko lim bi ne ko demal soxlaatuma laa gis nag bu fi ñëwaat waaye boo demee li la Cheikh Omar wax def ko rek moom du waxantu li nga bëgg yëpp dana sotti ci kàttanu yàlla waaye na nga tëj sa làmmeñ maa ngi tëj de Musa mi la allah wa daraa kunta kaman xaaraba rabbuna alkarim iyaaka iyaaka uqubatul alim dégg nga seex sayidul xaaji malik ci faaqaxatu tulaab ba léegi xaaji wa anta yow in lam tatruk boo bàyyiwul idaa awliyaa allah ngay lor nitu ci sa làmmeñ kunta dafa mel ni nekk nga kaman xaara ba rabbunal karim ki bëgg samp ay euh, gën xarawantek yàlla iyaaka Maodo nee na maa ngi lay wattuloo iyaaka ma di la dawloo uqubatul alim mbugalu yàlla mi xam mbugal ta xam fa mu koy teg Maodo nee na kuy xeex wàllu yu yàlla dafa mel ni kuy xeex yàlla ndax na mu mel yàllaa ko ko def moo tax Seydul Xaaji Malik bañ koy laaj luy wàlluyu ñu naan ca kurus ya la ca fele la boo defee lii doon wàlluyu boo defee lii doon wàlluyu ñu ne Maodo luy wàlluyu dem leen ca sóoratu Lanfaal yàlla firi luy wàlluyu ñu ne Maodo lu mu mu ne in awliyaauhu illa al ku la gën a ragal yàlla moo la gën a doon wàlluyu te mboolam jaamu yàlla yi moo ngi baraasaw ci ragal yàlla boo ci jël rek ci ragal yàlla lay daw xaaji maam waaja doon liggéey war a jiite ajjuma mu fayee ko trois cent mille dugal ko ci poosu dënnam te naan jumaa ja tey damay bayaan ci attaqwa ragal yàlla attaqwa lay ala kulli xaalin la sulamun turqa ilal jalaali ba muy dugg ca buntu jàkka ja am waaju sant siise wala sàmba ku garaaw ndeke loxoom tàbbi na ci poosu imam te imam yëgul waaja rocc trois dem ak moom mu taxaw ci minbar bi di xutba naan ragal yàlla baax na bàyyi leen yàlla xel nangam ak nangam am ku ne ci mbooloo bi moo imam ragal yàlla fu muy ne imam ne ragal yàlla ci xol lay ne loxoom laalu ca euh, xaalis mun a ragal yàlla ci xol lay ne loxoom laalu ca mu dawale mun a ragal yàlla laa ci xol lay ne loxoom laalu ko mu a boo ko gisul fii seet ko fii <laughs> foo su wet walay wër kat moo tax a taqwallahi ala kulli xaalin la sulamun turqa ilal jalaali boo ragalee yàlla xaaji maam loo soxla yàlla defal yépp ñoo ngi baraasaw ci ragal yàlla boo ragalee yàlla loo soxla yàlla defal la ko inna akramakum indallahi ragal yàlla la lépp baraasaw bàyyi yàlla xel di bàyyi jaamu yàllay xel moom la sàng bi doon wax démb mu ne ku gën a bàyyi nit ñi xel moo la gën a sës ci yàlla wormaal nit ñi jox leen seen worma teg leen seen place bañ a suufal kenn bañ a tuutal kenn foofu la nit di àgg ci yàlla xaaji maam loo wax ci yonent bi ma jox sang bi kàddu bi maa ngi tëj maa ngi tëj kàddu gi ku bëgg sayyiduna muhammad maami sërif ibrahima ay dara def leen nii ñu màggal ko sëriñ Maodo mu alxaaji abdul aziz si dabbaax borom bijjaaw bu rafet ba mooy wax ak yéen ci sayyiduna muhammad Maodo dafa àbbu waxi baayam alaa yaa rasulallahi yaa afdalal wara sëriñ Maodo wax lan alaa ci grammaire mooy arfu tanbih mooy dalay yee xam nga fekk nit di nelaw nga naan ko yàlla nee na del julli del jaamu yàlla del woor moo ngee nelaw déggu la Maodo nag dafa yore xarfu bi dalay yee ba nga jóg toog mu ne la sëlmul te raxas sa kanam bu baax te ndékki ba regg déglu ma ala waawee yaa rasulallahi ee eh yow sayyiduna muhammad lam ya fi saairun sëriñ Maodo nee na man lam yàq fi doyuma la saairun ci waykat yow yonent bi xatratin min haysikal hattaani mu ne dama pexe lii tokk ci sama bot bopp bii di ñëw tey wax ci say mbaax aw ma pexe pour teg ko ci këyit loo ma looloo ma tax a bind waaye ëpp nga ma yow sayyiduna Muhammad ma di la way sëñ Maodo waxu naa mu ne di la way ci lay jotee secret yi may jot ci yàlla yow sayyiduna Muhammad. tazawwada ruuhi bi kulli maadi. mu ne sama ruux bi amul sëriñ bu muy yóbbaale ci yàlla lu dul tagg sayyiduna Muhammad bàyyi Fatimatu bintu rasulillahi jaddul Useynu ko tabal te gaaw na ci dotte ay day mu fii i qawaida umraani sëriñ Maodo nee na ajaban maa yéemu li ummiyin ci ku ñu ne jàngul ba noppi yu allimu aalaman mu jàngal monde bi mu ne koo koy sayyiduna Muhammad wa yuqimu fi hawaa'id al umraani mu ne dund bi ni mu war a demee yonent bi moo ko defar door a ñibbi wuy ji boroomam ku tegu ca yoon wa rek tegu ca sëriñ Maodo ne saqaani rasulullahi qad saqaani kësal mahabbati la wax ak baayam alxaaji abdul aziz si dabbaax borom bijjaaw bu rafet ba moo sampoon xalimam ne xat saqaani kësal mahabbati min fuyudaati xaatimil awliyaa yi sayidul sëriñ sëriñ Maodo ne saqaani rasulallahi kasa mahabbatin kaas ya nuróowuñu de innal masaariba fi ixtilaafin xarriran maa xaala gayruka min ahlil bisaati man kaana min ahlil bisaati musaddiqan bi maqaalihi wa min albasaairi kahilin seydul xaaji malik nee na ki naan meew ak naan lem ak naan ndox mu ñu def kaani du ñu bokk nit ñi tàkkamti ko mun a ndox yi ca xadaratul ilaahi Maodo neen noonu la ñu wuutee Seydi Hadj Malick nee na kaca naan moom ndox mu am kaani ah. day gëmma rek du xam xadara ba fa mu ne mooy wàllu yuy dof waaw Seydi Hadj Malick neen na mooy wàllu yuy dof Maodo nee na boo fa àggee dafa am tiwo bu ñu baraase ci xadaratu xaqiqatu muhammadiya muy sotti ci xadaratu xaqiqatu ahmadiya Maodo nee na tuyoo ba nekk yàllaa ko tey bënn ko mu am ay bën-bën wala yu dof yëpp ci bën-bën yooyu la ñu naanee imam Youssouf da ngay xëy foog ni yaa ngay gis xadaratul ilaahi te fekk gisoo fenn la daloon waaja mu ne taalibe yi xadaratul ilaahi laay fanaanee taalibe yépp a gëm ko ndax ci kaw bayam lay fanaan bayo bi am bis mu aju ci bayo bi di nelaw soxna si ne taalibe tey moom ci néeg bi ngeen di ndékkee maa leen bëgg a bëggal tey ci néeg bi ngeen di ndekkee taalibe yëpp dugg ci néeg bi ñu toog di ndekki ba ci yàgg sëriñ ba tërëdi bërëngu rek dal ci diggu taalibe yi taalibe yëpp a xoolante mun a seet leen jibrilu di ma siisee asamaan si di ma buux man ko jula bu la jibrilu buuxoon nga dee salaamaaleykum wa rahmatullah aji maam ndax fekkee moo të waaye ku fekkee rek li Cheikhul Hadj Malick daan wax ne ku dund ren ba déwén yàlla jox la loo dundee ren ba déwén waaw Cheikhul Hadj Abdou Aziz nee am nit ñi ñëw seet ci Maodo nee na ku ne di jàmbat naan ko ah si ren de dara ñorut boo yeboo day nga ñaan yàlla ndax rek ku ne wax be daane ku wax be daane ku wax be mu ne Seydi Hadji Malick ne leen yéen mbooloo mi yëpp dama bëgg ku fi wóor ne déwén dina ko fi fekk nga yëkkati sa loxo mu ne kenn yëkkatiwut loxoom mu ne leen waaw ku sa déwén wóorut luy sa yoon ci dundub déwén mu ne ku dund ren ba déwén yàlla jox la loo dundee ren ba déwén donte waru ko ndax yàlla dara waru ko ci coobareem rek lay defe te moo wax ne wa ma min dabbatin fil ardi illa alallahi rizquha ne naa amul luy dukkat ci kaw suuf lu dut maa warlu wër sëgam moo ko warlul boppam nag waaye waru ko yàlla dara waru ko waaw kenn du ko ne pourquoi laa yusalu amma yafal wa hum yusalun yàlla ne kenn du ma wax man yàlla pour pourquoi man maa leen di teg ëllëg ne leen pourquoi lii pourquoi lii pourquoi lii waaye yàlla kenn du ko sëpp wala nga tiim ko wala nga jàkkaarloog moom naan ko yàlla lu tax lii kon ku dund ren ba déwén rek am loo dundee ba déwén ñu ñaan ko yàlla nag moo jafe waaye yàlla nañu ko yàlla defal ndax jamono bii ñu tollu jamono day jeex buy jeex nag mbir yi buy jeex day jeex rek kon nag ñu ñaan yàlla rek du ragal dee waaye bëgg a defal yàlla dara la rek ndax dee moom jarul ragal ñi dem anañu li sëriñ Cheikh di wax nee na barzax ku ko xamoon di nga gaaw a dem mu ne ndax foofu neex na trop waaw daf ko daa mu ne foofu neex na lool mu ne ndax dang-dang ji nekk fii amut foofu koy wax mu ne vingt cinq milliards ñoo nekk barzaq mu ne su ko yàlla organisé wutoon piccaxoo am fa mu ne xoolal sept milliards yi ci kaw suuf rek coow laa ngi bari àddina bi yëpp set milliards lañ Serigne Cheikh ku yéeme la te ba mu koy wax ak léegi man def naa recherche bi te bu ngeen amee itte def recherche ci internet di ngeen ko xam Chine moo ci ëppale Chine mu ngi ci un milliard presque un milliard trois cent soixante cinq milliards million ci lañ toll bu teg tuuti Inde moo ci topp Inde ñu ngi ci trois mille euh, euh, un milliard trois cent euh, un milliard deux cent vingt cinq million noonu lañ ko xayma ñoom ñoo ci ëpple te gis nga bu doon joboot day taxa na yaafuus kon Chine ñooy gën a yaafuus ci àddina bi waaye gis nga première puissance économique mondiale mooy Chine lu leen ko may bari léegi nag dangay gis ko am ñaari doom ñetti doom ne wallaay mënuma leen dundal naa ko fi yemale lu ji sa yoon lu ji sa yoon lu ciy sa yoon bàyyil xale yi ñu juddu laa na ayyuhum aqrabu lakum nafan yàlla ne njaboot gi juddu xamoo ku ci yor sa njëriñ ëllëg waaw ku war a juddu rek bàyyi ko mu juddu bari doom barke rek a ciy topp waaw wërsëg wi ci kaw suuf xajul ci nit ñi xajul ci nit ñi wërsëg wi ci kaw suuf ëpp nañu bu ñu ëpp loon yàlla duñu bàyyi ci kaw suuf wërsëg wi ci kaw suuf ëpp nañu jeune fille yi toll ci am doom laay waxal bu leen complexé su ngeen waree am doom rek am leen ko avantage la am na ku ko bëgg te amu ko su doon jaay mu jënd ko wallahi am na koo xam ne su doom doon jaay mu jënd ko yow nag yàlla di la ko may nga naan ko baax na te xamoo lu ci yàlla jublu te ñaar yépp yàlla wax na ko laa wala taqtulu awlaadakum xashyata imlaaqin beneen bi mu ne min imlaaqin bu leen ragal bu leen rey seen doom yi wala ngeen bañ a jur ngir ragal xiif mu ne ngir beneen bi mu ne ngir njort ne du ngeen leen mën a dundal ñaar yépp yàlla wax na ko kon nañ bàyyi yàlla ak suñu bopp te liñ nekk liñ war a nekk ñu nekk ci rek jeex na yëngoo la war yëngul alxarakatu baraka jaayal beñe waaw jaayal daqaar jaayal caaf demal bale ji loo mën a yëngu-yëngu ca moo gën tàllal sa loxo naan may ma may ma moom buñ la mayee sa kersa am na rawati nag buñ la mayee waaw may ma buñ la mayee sax sa am na waxuma la ak buñ la mayut nag waxuma la ak nag ñu may la mayu njëppite waaw kon ñun ñëpp nañ jéem yëngu démb presque ci laa waxtaan nañ jéem yëngu yëngu bar barke rek la dara nekku ci waaw dara newu ci jamono bii nag tubaab yi liñ leen doon naxee ñoom sax génn nañ ci fi ne Europe yëpp pare ci raw boo amee doom dañ lay fay soo amee ñaari doom dañuy yokk sa congé ak avantage ya ca topp yëpp ndax ñoom yëg nañ ne seen population juratuñ seen population ay mag a ci ëpp moo tax ñuy sacrifier africains yi parce que population africain jeunesse bi moo ëpp te ndaw moo mën a liggéey waaye mag mënul liggéey mag mënu ko bàyyi diba mii fi ne nii ku ko bëggoon yóbbu tool ya àddina tukki walla déet ah waaw ah Adja Faat Fall boo ko bëggoon a yenuloo paanu ndox ñaari yoon rek àddina tukki ah waaw mu ngoog liggéey ndaw a ko mën population boo xam ne mag ñaa ca ëpp duñ duñ dem fen moo tax nag dañ yeewu ñuy toj Afrique xale yi di màng di dem ñoo koy sélectionné de ñoo ko def waaye nag du du lay Barça wala Barça loolu moom du lay loolu du lay su ko defee li ngay uti bitim réew jaar ko ci yoon jaar ko ci yoon ba dem te la ngay uti bitim réew boo góorgóorloo fii tuuti rek di ko am waaw boo góorgóorloo fii tuuti rek di ko am bañ a rek loo xalaat ne mën na laa jëriñ rek ba dugg ci tabaarakallaahu moo tax ñu ngi nuyu ñëpp di ziyaar ñëpp ñaan yàlla nag yal yàlla may ñu dajewaat fii déwén yàlla bu ko kenn wuti yal na ñëpp ànd ak wér ñépp ànd ak wérle ànd ak mucc ànd ak mucc le ak wërsëgu yaatu nag bu gunge suñu dund gi ba déwén ba kenn ku ne loo bëgg a faj nga faj ko koo bëgg a dimbale nga dimbale ko yal nañu yàlla boole ci jaamam yi oomal bay dimbalaati yal nañu ci yàlla boole yal nañu yàlla boole ci jaamam ñi oomal bay dimbalaati ci daraja yonent bi Oustaz Sidi Ahmed doon waxtaane yal na ko yàlla def ñun ñépp ñu fekkee léegi rek maa ngi jëw bàyyi diba mii jaar léegi kër yuusu sëy bi daf doon tudd ma jaar fa léegi doon ko ndokkeel gannaaw soppe la te soriwul fii ma ne balaa maa ñëw ci tant bi naa fa jaar ndokkeel ko mu dem wax doomam bu mag bu jigéen bi ma ne ko mbaa yaa ngi jàng mu ne ma waaw maa ngi ko dugal école franco arabe ma ne ko génnee ko te dugal ko ci français bi arabe moom ku ko fi jàng di nga torox waxuma jàng diine de arab laa wax ma ne ko bàyyi dibaa ngi nii ñoo fi njëkk a xeex moom ak ñi mu àndaloon ba ci alaaji Moustapha Guèye Sidi Lamine Niass yal na leen yàlla yan ña dem yal na leen yàlla yërëm ñi fi des yal na yàlla dolli seeni fan ñoo fi njëkk a xeex bañ dugal njàngaleem lislaam ci biir euh, école français bi ñu ngi nii fuñ mujj bàyyi diba la ngeen bëggoon am ngeen amu leen ci tus ba tey ñu ngi jooy langue arabe taxawaay bi mu war a am ci réew mi amu ko te man maay wax ak yéen du ko am ba bés ndax ñi ñuy yilif arrangé wu ñi ñu yilif du ñii fi ne de état bi de tugal arrangé wul tubaab yi moo tax du fi am mukk loo mën a jàng doctorat mais ñii ñoom Abdou Aziz Kébé ñii lan lañ ay docteur lañ professeur Ousmane Ndiaye docteur la ñeneen mais da jàng lu ne bi luxatil arabiya dem keer génnee al ñëw ñu sànni la ci école primaire yi wala yi nga naan alifun baun taun booy ñëw xale yi naan yaa ustaas ñëw na di la yéej bàyyi di ba jaar na ci maa la ko wax sa cours sax duñ ko respecté cours arabe bi sax duñ ko respecté waaye yaa ustaas nag ñun tey duñ jàng te ñemewoo jàngale diine yi ci biir biir biir école bi ma ne ko li xew dugal leen ci seen doom yi nañ jàngi tubaab ma ne ko santuñ leen ñu mokkal alxuraan ñu ñu ñu xam luñ jaamoo yàlla rek lañ leen sant mokkal alxuraan du farata du farata saxaaba yi ñaata saxaaba ci mokkaloon alxuraan jëfe alxuraan lañ wax waaye waxuñ mokkal alxuraan ma ne ko yar leen rek bañ fonk waxtu yi juróom mu génneel ma ci benn xale ci doomam yi naan ma ku ku ku mën a jaamu yàlla la ma ne ko bu ko fi jaamoo dégg nga amagul juróom-ñaari ne ko bu ñu nga naan ma mën a jaamu yàlla ma ne ko looy doyee yàlla yow loo koy doyee yow julli waragu la sa bàyyi di la jeey naan ku mën a jaamu yàlla la ma ne ko jàng lañ la sant santuñ la jaamu yàlla yemal ci julli waxtu yi juróom naafi la sax bu ko def demal nga jàng ñu naan jaamukati yàlla nga mag ñu bejjaaw ña ci jàkka ja ñoo war a jaamu yàlla yow xale buy xonq cooy nga naan demoo liggéey yi jàngi woo nga naan jaamu yàlla nañ bàyyi di nax suñ bopp ak suñu njaboot nañ leen gëmloo jàng xale bu juddoo gut nga naan ko mën a su ko defee ñu sant nag bu baax ñi fi teew ñépp jiital ci jigéen ñi bu baax a baax ndax ki ñu fi tax a daje jigéen la mu yaaja jetu ba di ko sant di sant njobootam lum ñuy sant rek ñu ngi ko koy sant moom it ndax moo xiir njobootam ci ñun fa tabaarakallaahu dale ko ci Pape Fall ndax moo fi jiitu Aline door a ñëw ba soxna si la jógee tuubaa topp ci saa bu ne pap naka laati ah aji saa bu ne Pape ne ma aji nee na waa tuubaa dañ lay béggee whatsapp yi yow rek lañ ciy seetaan maa ngi door a gis aji démb kon nag nit bu jëlee njabootam yépp xiir ko ci yow mbaaxam la waaye du ci yow moo tax sëriñ Cheikh si daan na wax ni nit boo amee lim war a am mel ni mu war a mel dem di uuti kilifa mu ne dootul moom njaboot lay jàngal mu ne doonatul moom de njaboot lay jàngal waaye nekkatul moom parce que moom li mu war a am yëpp am na ko kon bu jógee di uti kilifa rek njabootam lay jàngal waaye nekkatut moom kon nag ñu ngi lay sant bu baax euh, soxna Jatu la ñaanal yàlla ak sa njaboot yépp ak say soppe say xarit say am di jàmm say àndandoo ak say dëkkaale ñépp yal na yàlla defal leen jàmm di jiital ci nuyoo bi tamit al imaam buñ noppee li tax joxuma ko gannaaw sa sii di dafa ubbi ba noppi moo tax buñ noppee dama koy jox micro bi moom mu def taaliix bu mu ci walla def door ñoo ñaanal yàlla comme ni mu koy defee at bu jot ñu ngi koy nuyu bu baax imam Mouhamad si waaye balaa muy lépp Serigne Cheikh Ahmad Tidiane si Al Maktoum sopp ko lool bëgg ko lool wone ko it benn faf ko niru Serigne Cheikh moom yàlla da ko suturaal taalibeem yëpp ko niru ku ci ne rek am na loo ko niru ndax man tashabaha qawman fa huwa minhum ku niru niru lu aw xeet bu yàggee nga bokk ci ñoom waaw kon ñu ngi leen di wax jërëjëf jotaay bi rafet na yéen a ko moom seen jotaay la ñun yéen lañuy ñuy jàppale yéen la ñuy jàppale ci jatu rek waaw luñ ci mën a def rek yéen la ñuy jàppale yal na yàlla yàggal taxawaay yi di nuyu nag moom laa waroon njëkkee xaddimu quraysh wala taqdimuhum shérif ay dara ñu lay nuyu bu baax moom sama soppee la fu mu nekk mu fekk ma fa léeg sax dama naan Chérif xanaa rawaan la moom fu ma dem ci Sénégal fekk ko yàlla xam na ko léegi damay toog ba mu yàgg ma ne Chérif mii boo demee rawaan la rek te mel ni mbubbam mii du ko soppi lu doy waar la nag li may wax nii lu doy waar la xam naa ne ñàkkul li mbubb waaye man fu ma ko gis mbubb mii lay sol ku baax la nag wax dëgg yàlla ñu ngi koy sant di ko gërëm di nuyu nag ñiy tagg yonent bi maam ngóor jiital la ci ak sa équipe ak seen mag maxtaar ak ñi ànd ak maxtaar yépp ñu ngi leen di sant di leen gërëm di nuyu ñi ci ginnaaw wax naa ko jot na Boubacar Tall ak euh, alaaju Mbeng ñu ngi koy nuyu di ko sant ak sama soppe Ibrahima Wat dafa am benn xale bu jigéen ngeen baal ma balaa may dugg ci waxtaan bi dama dem Paris xam na xaw ma ku ko jox sama numéro man bési tey bii laa ñibbisi mu woo ma téléphone ne ma man la awawaat yaa ma jox tarixa bi yàggut deux semaines la danga ma ko jox rek ma am visa ñëw Paris mu ne ma benn doom laa am sax maa ngi ko fa bàyyi ndeke moo doon soxna kii kii géey kii daan ànd ak bokkal si biir Cheikh Ndongo ak ah, kay moo doon soxna yi Cheikh Ndongo géey mu ne ma yaa ma jox tarixa bi matul deux semaine ma ñaan visa am ko ñëw Paris mu ne ma dama la bëggoon seet si ma boole kook ñoom Ousmane Diouf ana kii mu ngi fi ma boole kook ñoom Ousmane Diouf ñu indaale ko ak Amadou Sy bi ngeen xam bi fi woon ak Alsane Sow gis nga li may wax ci koo gis rek amal ak moom jàmm mu ñëw di jàpp fàtte fa jaaroom ma woo ko ne ko sa jaaro bi da nga ko fàtte far soxna si sama soxna dafa mucc bu yàggul gone ga maa ngi tuddee Seydatuna Xadiija nunu bi koy téye ñu war koo opéré sama xel napp napp te soxna sa moom kenn fa nekk day xëy di liggéey Paris moom amul fii li am fii amu fa yow kenn ak sa kër yow boo yaa xam nooy de yoonu kenn wu ci ma woo aw ne ko ah, ndax di nga mën a ñëw ñaari fan téyel soxna si ndoomam si ndax nunu bi mu koy yóbbu dañ ko war a opérer moom jël na congé sax waaye le 15 lay commencer. le temps nunu bi reprendre moom dana fekk congé am jeex mu ne ma loolu kañ dama ci sawar xam nga bu fekkoon amuma ak moom jàmm say loolu du am ci laay tudd nag laaj ko ne ko ndax xam nga Ibrahima Wade ba tey jii sama kër la war a fanaan kon koo gis rek amal ak moom jàmm waaw soxna si di xaw a am sikk ma ne ko kii kañ taalibe Cheikh la maa ko jox tarixa bi ñoo bokk dëkk Géejawaay xam nga am na ñoo xam ne gëmewuñ seen doom ma ne ko waaye du ko lekk du ko naan jox ko xale bi nit waaw loolu ma seede lool leen ko fa tabaarakallaahu kon ñu sant la bu baax Ibrahima Wat sant ñëpp nag gërëm ñëpp Pape Fall yii ak doomu baayam yi nga xam ne moom Aliyun nekk ci biir kër gi ak ñi jóge tuuba ñii bokk ak Pape Ndey ak Baye ñii bokk ak Pape Ndey leer na ñi bokk ak Pape Ndey ak Baye ak ñi bokk ak moom benn ndey ñu ngi nuyu ñépp di sant ñépp di gërëm ñépp jatu ba daal nee njobootam ci gàttal njoboot gi yëpp mu ngi leen di sant di leen gërëm ñi nga xam ne mooy seen bàjjan ñi nga xam ne mooy seen yaay ñi nga xam ne ñépp rek ay mbokkam lañ mu ngi leen di sant di leen gërëm di santaale nag waa Nedda ko Bandum teg ko ci loxol Adja Sala Ba mi leen jiite fa tabaarakallaahu ahsanul xaaliqiin imaam ñun ñëpp xam nañ ne mu ngi jëm mag te timis ba tey mu ngi fi da bëggoon rek ñu jox ko kàddu gi mu ñaanal ñu yàlla ñu bàyyi ko mu yegg kër ga ñun ñu des fi waaw kañ sama murit bu baax bi waaw tabaarakallah mu yoral la ko te dara waru ko nag o eh, waddima kadi e julɓe e hoddiɓe moƴuɓe yàlla dogal mu boole la ak ay jullit ak dëkkandoo yu baax eyi eh, ɗum joomum foti yettude aɗa no feewi nee na war na sant yàlla bu baax a baax eh, ko adi fof eɗen calmina hono mana sarif mana sehil men o giɗo meɗen o eɗen calminamo no feewi nee na jiitu mu ngi nuyu sunu soppe sunu xarit Cherif Ibrahima Haydara Tidiane fof en jii darde makko e maana islam o e julɓe sénégal e, e, fof tan en jii darde makko nee ñun ñëpp gis nañu taxawaayam ci diini bi ak réew mi ak mbokki jullit yi yëpp nguurdam makko fof ko jihaadi ko faade l'islam fadde wallude julɓe no maana moni fof no maana andiri allah no foti rewrude allah no foti huldude allah nee na dundam yëpp mu ngi koy def ci jullit yi jàngale leen xamal leen kuy seen borom xam nañuy ñuy jaamoo yàlla ji o jooɗaaki nañu toogul guddi ak bëccëg e, mu ngi ci mu ngi ci soxla jullit yi mu ngi taxawal diine bi di yee jullit yi nan la ñu jaamoo yàlla allah tan woni jooɓowo inna allaha la allah woni tan kala ko neɗɗo waɗe moƴƴere ko allah woni jooɓowo yo allah yombo moƴƴere nee na yàlla mi nga xam ni moom mooy fay dafa ni inna allaha la yudiu muhsinin nee na du mu sànq jëf joo xam ne jullit yi ñu ngi koy dox di ko def di ko digle allahu subhanahu wa taala o wi man amila salihan min zakirin aw unsa wa huwa muminun fo ulaayi kadi humno janna kala kala mana so gorko so debbo yàlla nee na képp koo xam ne jëf na jëf ju baax jëf yiw mu doon ku góor walla ku jigéen walla nuhi yanhu haya tan ɗe yibata ma wurno mo gurdam moƴƴam nee na moom de yàlla nee na dana ko fay fay bu rafet te mu dundal ko dund bu yiw bu yewen caggal mana gurdam moƴƴam ɗam so yiita jomiraɗo subahanahu wa taala wata heɓa toon jomdi ɓurdi moƴƴude en jomdiji nena ganaw gannaaw loolu bu demee ci sunu borom dana ko fay fay fay yu gën a rëy yu gën a baax en jii noon kanko darda makko maanaam islam wona foyi ma allah ko ko allah haali ko iwata ɗum tan wonata nee na gis nañ taxawaayam ci l'islam bi nag waaye yàlla lu mu wax du dañ mukk kala baaluno makko ni kadi ma heɓ ɗum so allah képp koo xam ne tamit mel na ni mu mel inchallah dina dina am loolu yo allah yo yàlla yo moƴƴere yal na ko yàlla fay mbooloom jullit gutti ba nee ñu ngi sant sabab bi bi xam ne moo tax ñu daje fii mooy hajja jatu ba nee na baax a baax darnde makko e islam o en jiini no feewi darnde en jiino yo allah yomba moƴƴere gis nañu taxawaayam ci l'islam bi ak jullit yi ak dëkkandoo yëpp yal na ko yàlla fay mbaax ɗum ko geɗal manggal ngol ngal o walli ɗo e ni kadi weeɓaani nee na loolu cër bu mag la bu rëy la ñi am na ñeneen ñu mel na moom ñuy taxawaay taxawaay bi waaye nag taxawaay bi mu taxaw yombul yo allah yombuma jere kanko e waaɓe noon fof yo allah yoɓɓinanuma jere yal na ko yàlla fay yiw moom ak ñi mel na moom ñëpp yal na leen fay fay fay yiw alors ken kadi wattini kam allah jaarama on jaarama mi weltima min belti enen fof en beltima nee ñu ngi sant yàlla bu baax ñun ñëpp kontaan nañu yan nanu yàlla may ñu fekkee ay déwél yu bëri te ànd ak wér eh, so wonaa no ngantu ɗo gonten ha ha mana ha sarif duwono en so wonaa ɗon ngantu nee budul woon ngantu fii la ñu nekkandoo ak mbooloo mi ak jullit gi ak sarif bépp mu jeex ɗum noon totten sarif tan doono en ñu delloo micro bi rek mu defal ñu ñaan ñu yeeweeku e, ngeen defal ñu fii gorko heen debbo garɗo kala garɗo heen yo allah mana hokku ɗum yidde muɗum nde góor ak jigéen képp ku fi taxaw mbaa mu ñëw fii yal na ko yàlla may yiiw ak pajum aaju yàlla may ko li mu bugg yëpp mu ànd ak wér nag limanaagal timmungal ak iman bu mot sek de yàlla moƴƴin gudd fan yal na yàlla may mujj bu rafet barke annabi sallallahu alayhi wa sallam jaahi rasulillahi ngi sakku ñaan rek ñu daal di yeewee ko imaam nee na nga ñaan bu ñu paree ñoom it ñu ñaanal ñu. Serif euh, suñu kàddu du bari lu dul am mbégte te di ñaan yàlla subhanahu wa mu dooleel la ñun daal lu ñuy wax mooy foo toll yàlla na nga ànd ak ndimbalu yàlla ci barke yonent bi alayhi salaatu wa si seen wax bi ma dégg yëg naa ne yàlla teg na la loxo yàlla yëkkati na la ndax kuñ dul wax ci yow dara lu ñaaw yegg yeggagoo ci yàlla Cheikh Ahmed Tidiane si almaktoum dafa doon wax ne war ngeen fexe kenn ku ne am fukki noonu bés buñ xëyee di la wax lu ñaaw seen yu baax yépp yàlla di la ko jox bu fekkee am ngay njuumte ñu teg leen ko waaw nit ñi kat Sénégal gi ñu nekk li ñuy dund fi mu ne nii kenn xamu ko ku baax rek lañuy bañ a gis koo gis ñuy ŋàññi ci télé yeeg ci rajo yi kuy yëngu ci diine yàlla takkal na la garaat te ñoom loolu la ñuy bañ islam bii daal fay ko moo leen tere ne waaye ñoom ñooy fay waaye islam bu fay ila mi diin ku saq ci diine di dundal diine lu tuuti rekk ñu yëkkati lu nekk ñu wax ko ci yow te ñu bon ñuy yàq ñu ngi leen di aar keroog jàngkat jàngalekatu alxuraan bi ñuy jël di wane ci télé yi ñëpp di coow pour lan jàng alxuraan yonent lan la wax xayru ko man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu ki yonent bi ne moo gën si nit ñi waaye ci Sénégal kookaa bon jàngkatu alxuraan yi lañ bañ a gis te nitu nguur ñi kat yéen a leen tee nelaw mais dañu am xel nag di masque di nëbbu mais président bu sañoon tey toog ak Ibrahima Aïdara ne ko nangam nangam nangam te kenn du ko yëg bu sañoon bu ko mënoon def ko ñeneen noonu ñeneen noonu yal na la yàlla taxaw yal na la yàlla jàppale bi jaay rasul na sa xel dal njabootu seexu Amar Fuuti wu buñ taxawee lu ñu wax ci yow ku ko gëmul sa affaire la ñi am sens nag dinañ ko nangu te bëgg la kilifa yu baax yi kuñ bëgg baax na kuñ fa ba baaxul yal na yàlla taxawu la kàddu yooyu rek nga baal ñu ci sa ndigal lañ ko waxee waaye wax dëgg yàlla jaaruwuloon sax ndax li nga fi wax rek doy na yal na la yàlla taxaw yal na yàlla sàmm sunu yaay jàttu ba na la yàlla gën a dëgëral bi jaay rasul sallallahu alayhi wa sallam ngay yëngu day foofu la dalal nga xelu mbokk yi ñun doom yi kontaan nañ sa càmmiñ yi kontaan nañ njaboot gi kontaan nañu ndax munoon nga woote leneen lu dëppoowul ak lii waaye lii ku mu neexul yaa xam neex na yàlla neex na yonent bi alayhi salaatu wa salaam bàyyi leen ñu wax. ah jërëjëf mën mënutoon a ñàkk. tabaarakallaahu ndax yéen a ko moom. fa tabaarakallaahu ah, mag moom toogaay bu yàgg mënu ko. su ko defee dañ lay bàyyi rek. ngeen yeewee ngeen yóbbu ñi ñu dese leen. incha allah di nuyu. xel yaa ngi ñëw na xadara ay yoon. waaw ànd nañ dem Louga. waaw sow. mu ne moom mii moog yaayam ñoo bokk na xaar ture waaw xaar ture bii nag moo tax ma xam jatu ba nii mu ne xaar jarbaatam la moo ko may Omar Dia rahmatullah alayhi wa radiyallahu yal na yàlla dolli leeram te yërëm ko mu ne moom mii nijaayam moo ko jur mu ne moom kii magam bu jigéen moo ko jur mooy imaam jàkka ji ci marché Njaaréem mooy ah jumaa marché Njaareem tabaarakallaa moom mi mooy imam bi nga ne xaar loo bokk ak moom yaa ngi yaayam yéen bokk ndey waaw seen ñaari yaay yee bokk benn ndey est-ce que xaar mii nag moo tax ma xam jatu ba mii tabaarakallaahu ak njaboot Omar Dia yëpp njóobaa nga ne la ci ginnaaw jiitu woon xaar topp ci kaw jërëjëf waaw loolu baax na ci yow waaw léegi ku jàpp fu ñemoon daaw wax jaa ngi ñëw na déedéet Omar Diop yow mi yore film yi fu ñemoon daaw waaw moom ragal na yàlla nee xamul mbay jub ku ne ci tànt bi ku xam fu ñemoon daaw waaw waaye laxdari la imaam Yuusu Géey yow ma nadoo kulla unaasin bi imaamihim imaam Yuusu fu ñu daaw alaaji baara ah man de àddina tukki na xalifaal de gisuma ko fi daaw ah bu ñëwoon nit du nangoo ñëw yéen góor ñi ko ci ku fi newoon daaw ku ku xam fu ñeemoon Mansour dafa jaral laaj Mansour lim leeree biig sax fàtte na Mansour kañ boo koy laaj laaj ko fàttal waaye bu dul fàttal boo ko laajoon sax Baba Gueye lu mu tudd fàtte na nga rawati ba Baba Gueye demee Cerno Ja fuñ toll woon daaw ñëwoo woon moom kañ kenn du nangoo ñëw waaw léegi dinaa leen xool kenn ku nekk bu ma la joxe ñee déwén incha allah ne la fa ñeemoon nga ne ñëwuma danaa la wax loo xam ne ci tant bii ndax ñi ma ñi ñëpp gis naa leen xanaa ak bañ a ñëw xam nga lu tax ma di ko def technicien yaa sonorisé woon daaw ah du nangu <laughs> bookar si ñëwoon nga daaw kenn du nangoo ñëw njaga mbay ñëwoon nga daaw danga nga tardé woon waaye fekkee nga ko kon war ngaa xam fu ñu yem ah man de jaaxle na ah déet mais da ngeen war a xam gis nga koor ka xale yi baarawan jur leen ñi ci koor gi ma di leen defal fii waxtu wu ma ne fuñ yemoon rek koor ka wax ko ah parce que ñor na ko waaw kay Omar beneen yoon na ku ko def du ma waxtaan sax damay yoon xam doy naa li oustaz Sidi Ahmed Mbaye wax bu Chérif Ibrahima Aïdara Tidiane waaw ah. te buñ doy loo woon waxtaanam sax mu doy sëkk nag dëgg yàlla sa kamara waaw buñ doy woon lim wax mu doy sëkk ndax lim jot a wax rek yee na ñépp tabaarakallaahu ajaajatu xaw na koo trouvé waaye moom yaakaar naa ne nuyu gan yee tax du ko xam fu ñu waaye nuyu gan yi nag war na ànd ak jàpp bés bi gan yi yéen da di dem ah waaw loolu de farata waaw ah, loolu yal na yàlla barkeel yal na yàlla barkeel yàlla barkeel barkal toog ba ñooñale noppal leen incha allah yal ko yàlla def defal ñu ko nag ñun ñëpp it nag defal ko suñu njaboot soxna si yow foo nekk ci Italie yow dama lay romb man Vicenza la ëpp lu may dem. waaw incha allah ren rek laa fa ñëw ren moom Milan rek laa yem incha allah tafsir waaw wax nga dëgg fële ca Vicenza dëgg la waaw wallaay ndeysaan dëgg la yal na yàlla dool yiw ren nag tafsir rek a ko def sax parce que dafa fekk boobu man maa ngi Espagne Chérif Mamine tawatoon ba hospitalisé waaw mu ngoog voilà mu ngoog bés bi muy jógee Espagne euh, itali bés boobu laay ñëw man Italie tabaarakallaahu su ko defee kon kan